source a la ñu koy tàmbalee gis-gisam ci banlieue ndakaaru bi aawlu lool jamono yi ak waame gu mitti rax ci dolli wote yu gaare gréew mënuñoo dem mënuñoo dikk yéeni kaay bi ne safari aftu yi ñooy sàkku yokkuteem seen i payoor tax ñu gaare wote ya diiram ñetti fan moo waral ñenn ci banlieue bi danoo mujj dox wala ñeneen ña di xaari waxtuy waxtu ci arekaar yi ca gaar bu tëyeer moom foo sànni mbàttu mu tak saxaar ga fees dell la def ci garage Colobane donte ñu ne rapide doon fexe wuutu aftu yi waaye seen lim doyul rax ci dolli nag sekkeen ak njaweenu safari joueur yi bëggoon yokk paas yi profité ci situation bi su dee nag wàllu waamee gi di inondation yi ak nawet bi Sud Quotidien ne jëwriñ ju nu ndox mi ak naatangoom yore wàllu xeex beeg waame doon nañu janoog taskatu xibaar ngir xamal askan wi nguur geeg matuwaay yi mu ci jël pexe yu am solo yoo xamante ni taxawal nañ ko ngir ak oyofal ci nawetab ren bi lu toll ci téeméer ak juróom fukki bërëb yu nuy amali jumtukaay ñod di ndox moomee ci juróom-ñeent fukki communes yu Sénégal ca Touba Mbàkke ñu ne programme ñaar fukk ak ñetti milliards la ñu fay doxal bokk na ca taxawalum ñaari bassin ànd ci ak ONAS bi yore liggéey bi ci liggéey boobee mu ngi avancé bu baax li lépp nag taxul état bi garanti ne ak waame moom du am fenn ci Touba ana fu état bi ne loolee népp laaj la yéenekaay bi direct news xëye lu jëm ci wàllu tukki mi ci anam yi dëppowul ak yoon ndax ñu ne géej gaa ngi wéy di lekk gune yi rek keroog fukk ak juróom ñett yu téer ca wakaam ay nit yu organisé yooyu xeeti tukki ñaari wéere ngi ca tiituñ ca dara mbaa du dafa am baara yëgoo diggante ñooñee yóbbuwaate ak ñi leen war a kar gàntal seeni pexe libération mel ni ku cay tontu naan état ngi fi nanu ko ñaar ya doon waaje ca ndar ak jógo beneen ba ñu kare ko ca bax ñi gouvernement bi indi nag ay leeralam ci le soleil bu njëkk lu ñeel bakkan ya ca wakaam ñu ne du fukk ak juróom-ñett waaye fukk ak juróom-benn seize ca bato du mooy ki mbëkk gaal gi ñu teg ca ne na ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti aji tukki ci anam yu ak yoon yu nu kar ca Maroc di ay doomu Sénégal ca ñu ngi ci waajal gi ngir wàññi leen ñu ñibbisi foofee ca Maroc ca Dakhla observateur ne aji tukki sénégalais yi nag ñoom yaakaar bu tas lañu fa nekkee ci yéenikaay bi kuñ juróom-ñaar ne moom dootul dugg mukk ci xeeti tukki yi nga xamante ni coono ak tumuranke rek la ko dugal ca fax ca réewum Tunisie naka noonu sénégalais yi fa teer yi ca doon gént wutali ca tugal observateur ne ñoom it naqar la ñu fa nekkee ki jafe-jafey neen jumtukaay yu bariwul salaire di payoor yu tuuti ca néew ay pexe pexey siifee ki yàkkataan reportage la fa yéenekaay bu taaxam El Hadj Eliman amal ci jafe-jafe yi fa sénégalais yi nekkee ci bëccëg gu ne foofu ca Sfax ca Tunisie le quotidien ñëw bi ak ni mu taxawee ngir dakkal moo même tukki Karim Fofana porte-parole bu gouvernement bi ne ci njëlbeenu at bi rek juróomi téeméer ak fanweeri nit jàpp nañ leen ñeent fukk ak juróom ñaari yam di aji yóbbuwaatee sisir nañ ca it juróom-ñeenti gaal ak juróomi moteur gendarmerie moom teg na loxo téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ci ñu bëggoon tukki ci yooyu anam téeméeri ak juróom-ñaar fukk ak ñett di doomu Sénégal ñaar fukk ak ñaar di ñu fekk baax bitim réew diggante Soumbédioune la Yoff Warang Joal Mbour Saly Pointe Sarène Diouloulou Pikine ñu ne ba ak xereñam gépp xam-xam bi jaar-jaar yi macha allah donte it ñu ne mu ngi ci à la traite politique jamono yi terewul bokk na ci ñiy tànn buur 2024 di faiseur de roi ci waxin ak mission bu am solo bi ko président Macky Sall dénk ngir mu déglul ko natt peese ñi taxaw samp seen ndënd ci biir Benno Bokk Yaakaar yéenekaay bi di réew mi moom ne président Sall jamono yi moo jaaxal ay farandoom ak pataaral gim boole ci tànnee foog mbër mi leen war a demal 2024 yi ci yàbbiwu ca bu mu jógee ñu naan déeta waaye ay fan la ci teg mu jëlaat avion dellu ca Saint Petersburg moo waral yéenekaay bi jàpp ne jamono fu ne mën na faa génn imprévisible journal l'info moom xamal ñu ne ci juróom-ñetti weer yi des ci départ am moom président Macky Sall taxul mu wàññi njaxlaf gi ci liggéey bi dina amal sax ñu ne remaniement di yeesal ñeel nguur gi ndorteelu weeru ut Amadou Ba dina ca yebbeekuwaale poste sport ak élevage yi mu yan waale boobu ak léegi gouvernement bi ñu ne buy may président Sall lay doon mu yeggale projet ak liggéey bi ngir Sénégal ngir mën a génn ci làng gi ndoxum Sadio Mané ca Arabie Saoudite yéene bi ne yëf yi ku mooy wul daañ ko nase ca Tokyo ngir kon demam moom Sadio Mané ca Al Nassr wàllu lamb sunu lamb ne Ama Baldé Gris Bordeaux nas nañu ko benn fan ci weeru octobre 2023 Pikine d'accord nanu waa Fass ñooy mbase jamono yi ndax ñu ne Ama Baldé ak Abdou Bakhoum signé nañu démb Gris Bordeaux moom weeru décembre wala janvier 2024 moo ko gënal Ibrahima Diop di xamle ci yéenekaay bi ne arène bi nag waa Fass nañu xam ne moo mënu ko stade yéenekaay njort ne ku moywul fa nu jëm mooy cib ñàkk jaaroo diggante CNG bi ak écurie Fass. dom du doom bee dugg ci li ndax ma nga woon ci su tax guddooy sëkk fii ci mim réew Umar Mbow ci ay leeral. ca morgue opital militaire bu Wakaam la Djibril Tine gisaat doomam bi mu doon wër ay fan ngi nii. ndax doon nañu gis sax vidéo yi télé yeeg ak téléphone yi. mais taxul ñu xam ndax lu xew parce que ngóosi bi ñu dem kenn yëgul nii mu ngi nekku fi. te xam affaire bi deux jours la war a tombeel heureusement ñu dem dem ba yàgg keneen ki mu àndal lan ñoom tam seen waa dëkk dëkk yi mel matul un kilomètre sax ñooñu xam na am information yi wane ni am na gaal gu am problème Wakaam ñu ñëw fi biig ci ñu doon ah, leer na gaal gi amoon problème Wakaam ñaari xale yi ci lañu bokk benn bi la dëkk benn bi mi ngi dëkk Daaru Salaam ci kookee doddu nag amoon jabar ak ñaari doom munoon dafa lépp boppam ak ay famiyam ndax da liggéey lépp kopp xëy na ñaa ko gis waaye moom musuma xalaat sax ni xalaat na di dem ci gaal yi ndax nag doonatul benn xale bi mi nga ñaari doom day am ay responsabilité a la yoon def sa tool la fa bàyyi waaw kuy dem tool ak a ñëw di récolter xay na di denc xaalisam mais bu xëyee bëgg a dem du tàggu kenn ndax xam nga lii ku ko tàggu nit ajoor ñun ak fa ñu dëkk xam nga doo ko ca bàyyi xam nga ku yor soxna yor ay tool soo gëjee ci àll bi dañ la laajte taal gaañu na rek te ñoom yàlla dogal na kenn ku ci mën a fay un mètre amul Jibril Tine nag ne musul xalaat ni li nu mel dina ko dàpp léegi nag lu des kay mooy ñu jox ko doomam mu dem denc ko fu mu dëkk jarul sax ñuy autopsie. néew bi nag fi mu toll nii tembe li nga xamante ne mooy ci sama jafe-jafe. problème bi ma ñëw fii nga ma fekk ma doon lijjanti këyit bu ko génne laa doon wut. sëñ baa nga ñuy xaar tubaab pour war ko yóbbu. te maa ñu ci a def. moo di jàkkaarloo moom. médiateur yi médiatisé ko fu ne nga ne ñii dañ leen gi indi mais kooku li ko rey leer lu logique mooy bo ay bokkam ñëw ñu jox leen ko ñu dem rab ko ñaanal ko yàlla waaye nekkaat ndakaaru di wëreelu ba ngoon loolu moom vraiment Mm, d'accord naan seen liggéey la ñuy def waaye mbir bu leeree jëratul kookee jógee ca Mboro nag ak yeneen i naataangoom doomu sénégalais doon dem ca Espagne daal di lab ca plage bu Wakaam ñooñe nag doon wër ñooñe nag dafa mel ni wër ëllëg bu gën moo leen dàpp. Omar Mbow ministère bu ñu dénk ndaw ñi euh, ak entrepreneuriat nag waaye tamit emploi di o euh, ñoom ñii di mbëkki daal ñu fexe ba wan gannaaw yoon woowee ci géej gi ndax ay bakkan mën na cee xot. ñu nag fexe ba des ci mim réew Pape Malick Ndour yëkkati yoolee kàddu ci ba ñu lancé CNES junior di confédération bu boole liggéeykatu Sénégal ñu tuddee ko CNES junior dina taxaw ngir daal fexe ba gën a jëmmal liggéey ci réew leeral ak Seydina Bilal Niang mbëkk mi nga xamante ne ñu ngi ko nemmeeku jamono ji tax rek ba ministre bi ñu dénk wàllum ndaw ñi di ñaax ndaw yi ci boppam ngir ñu woon ginnaaw bi lay phénomène lu mel ni su xewee li ñu war a def mooy jéem a accentuer la sensibilisation fexe wax ak xale yi ba ñi nga xam ne ñoo fi des bañ a jéem a def wala jël yoon bi nga xam ne ñeneen ñi moom la ñu jëloon ba loru jàpp nañu ne c'est vrai yu mel ni su amee il faut que yi waxtaan ci conséquences ñu ne moom mooy jéem a xool naka la def ba wax ak ba xale mën a toog ndax nag xale yi li ñuy wuti bitim réew yaakaar naa bëri na loo xam ne mën nañ ko am fii ci réew mi naka la mën a def ngir andi saafara ci bile bokk ci objectif yi nga xamante ne moo ñeel confédération nationale des employeurs du Sénégal moom mi nga xamante ne ni ki tey jii daal dinaa taxawal CNES junior Adama Lam di seen njiit ndaw yi nga xam ne dañoo am mébét doon patron ñu jëm leen jàppale euh, loolu nag ñu def ko ci li xam ne dafa tombeek tiis bu metti génn gis nañu ne suñu njaboot yu bari ñàkk nañ leen ci émigration clandestine ñu leen wax ne que xale yi bu leen xàddi li nu mel ministre bi ñu dénk ndaw ñi di ko rafetlu tey xam la ne dina leen gunge. waaw ndaje tey bi nag nas daf ñu jox opportunité organiser ay jeunes ñu ñëw bokk ci nekk ay membres à part entière loolu nag nga xam ne CONES def na ko lim ñuy offrir comme opportunité mooy ñun dañuy am ay interlocuteurs yaakaar naa ñu ngi ñaax donc ci initiative bi nga xam ne moom la CONES def jaar pour mun leen jàppale donc loolu ñu ngi leen ci félicité di leen ci remercier mais aussi di leen ci encouragé di leen wax ne mun nañu compter ci ministère de la jeunesse pour mun leen accompagner. bu ñu sukkandikoo ci Pape Malick Ndour nguurug Sénégal andi ay moyens yu baree bari ngir rek daa dee saafara xëyu ndaw ñi. ci boobu jamono ay téeméeri téeméeri ña bëggoon mbëkki day doomu Sénégal la wallu fa fa ca ca réew Maroc ñu wal leen indiwaat ci réew di Abdou Karim Fofana juróom fukk ya dañ leen di jaarale ci roplaan yi yeneen yi des daal ñu jaaxal leen ci yoon wi di ay kàddu nag ñu amal ni ki démb ci ba euh, de presse bi nga xam ne gouvernement moo ko doon amal léeg-léeg Jean Paul Ndour bi nee na fu mu toll nii nag euh, taxaw nañ temm ngir 478 euh, migrants yi ngeen xamante ne jamono ji ñu ngi fële ca Dakhla ci Maroc ñu indiwaat leen ci réew mi ci anam yi gën bu ñu sukkandikoo ci Abdou Karim Fofana ministre porte-parole bu gouvernement bi. président de la ministre euh, Annette Seck bi nga xam ne moom moo yor doomu moom lañ dénk doomu Sénégal yi dund bitim réew bi nga xam ne moom lañ euh, toftale ministre des affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur xëy na tey ci suba sept heures du matin dem Dakhla ànd ak avion militaire li ko waral mooy dafa war a jël juróom fukki doomu yi nga xam ne foofu ci centre yi lañ leen euh, lañ leen suñu mbokku mankaay yi dalal ngir toppatoo leen andiwat leen fii ci réew mi juróom ñaari bassin de rétention dinañ leen euh, amal diggante Kounoune ak Niague buñ ñu ci Isaaxa Diop di ministre auprès du ministre de l'eau et de l'assainissement chargé de la prévention et de la gestion des inondations donc beneen am na ay zone yoo xam ne daaw ñoo gën a métti ndax hivernage mu jur nag ay dégâts yu am na am na lu bëri ci yéen. bàyyi ngeen dañu koy daal di door rek euh, wàllu football ak euh, ci lu jëm. ci compétition interclub euh, africain yi moo di jogante nga xamante ni daal moom mooy boole équipe yi nga xamante ni ñoom ñoo daal jël seen championnat ci seen réew fii nii ci Afrique la jël li nga xam moo di seen coupe nationale Sénégal nag ñaari équipe ñoo koy daal teewal moo di Génération Foot ak Casa Sport Génération Foot moo di équipe championne bu Sénégal Casa Sport daal jël li nga xam ni daal moo di coupe du Sénégal euh, li ci moom xam na ñan lay tasal doomu Guinée yi lay daal doon di Afia bu Conakry euh, dañ ciy daal di ki nga xam ne moo di Balla ci li nga xam te ne moo di phase de poule yi ñu déglu ko. waaw comme ni ko ñëpp gisee rek waaw tirage bi moom wax dëgg yàlla tirage la boo xam ni ñun tey xamoon nañ ni tirage yu Ligue des champions la waaw ku ne Ligue des champions nag xam ne ay champion kese ñoo fa daje donc du ñu ay équipe yu ndaw ñoo fa daje kon Afia tey soo ko gisee équipe la boo xam ni bon équipe bu génnee Orea Orea moo nekkoon année yi passé yëpp premier Guinée tey mu ñëw ren jël premier kon donc équipe bu mata a sóoraale la du équipe bu ndaw objectif bu club bi fixé objectif bi mooy ñëpp xam nañ ni tey kuy compétition di nga bëgg a dem nu mu gën a sori waaw ah, fi mu gën a sori rek moom mooy objectifu club bi ah, après nag ah, du doon yoon bu yomb aussi ah léegi nag ñun lenn rek la ñuy def jël match par match comme ni ma ko yàgg a waxee match bu ñëw ak façon match bu ñëw ak adversaire bi nekk sa kanam match yi dañuy toppante te duñu niroo donc nag ñun dinañ jël match par match jéem a atteindre objectifu club bi mooy dugg ci poule voilà laata ñu dugg nag si fas de poule foog ñu jaar ci kaw ñi nga xamante ne ñoo di waa Afia bu Conakry ak itam. ñii di waa Zamalek euh, euh, wala bokk ñi nga xam ñoo di Wydad Athletic Club bu Casablanca bu fekkante ne ni Génération Foot jot na jàll li nga xam ne moo di premier tour préliminaire ndax deuxième tour préliminaire buñ ca amee ndam itam seen digg ak Wydad lay daal di doon laata ñuy dugg ci li nga xam xamante ni moo di phase de poule ci lu jëm ci Ligue africaine des clubs champions. leneen li nga xam ma nañ ko wax moo di Coupe CAF foofu nag ña fa teewal Sénégal moo di Casa Sport bu Ziguinchor. ñoom premier tour bi seen diggante ak euh, étoile filante bu Ouagadougou di équipe bu Burkina Faso ñoom ñooy dal di euh, tase ba ñu ca amee ndam ñoom waa Casa deuxième tour bi nag danañ si tase ak ñi di waa Rivers United bu Nigéria ca am tam di nga daal di dugg ci li nga xam te daal moo di phase de poule yi jàppaleen jongante yooyu nga xam te ni euh, ñu ngi doon amal tirage ni ki démb dinañ ko daal di amal fukki fan ak juróom jàpp fukki fan ak juróom benn ba fukki fan ak juróom ñaar ci weeru septembre bu loolu weesoo ñu daal di waxtaanee lii di Coupe d'Afrique des Nations 2027 fi mu toll nii réew yi nga xamante daal ñu ngi ko bëgg a ku ci nekk yaa ngi def seen kéem kattan ngir fexe kon bokk nañ la ko dénkee Sénégal nag bokk na ci équipe yi nga xamante ni dañoo daal di kon bokk samp seen ndënd ngir daal di organiser li nga xamante ni moo di googule euh, Coupe d'Afrique des Nations boobu ak léegi nag waa CAF dañ fi yónnee ay ndaw ngir ñu daal di coytu euh, jumtukaay yi nga xamante ni daal euh, danañ ko soxla bu fekkente ne ni Sénégal jox nañ ko lii di organisation Coupe d'Afrique des Nations 2027 ni ki démb sax jàpp leen ni ñu li nga xamante ni dañ leen daal di yebal fii nii ci Sénégal ñu ko woon ca diwaanu Ndar foofu jàpp nañu ni que dina bokk daal ci région yu nar a organisé di Coupe d'Afrique des Nations bu fekkante ne ni dénk nañ ko Sénégal dañuy daal di déglu Cheikh Ahmed Tidiane Sarr moom mi nga xamante ni moo di directeur des infrastructures sportives ci biir ministère des sports ma ngay xamle ne sax lu yàggul dara daanañu daal di door lii di tabaxum stade maître Babacar Seye euh, wala bokk oui stade maître Babacar Seye bu saint wi ndax foofu lañ ko bëgg a samp ca bu Bujuk euh, ci euh, daanaka superficie fukk hectare ak juróom-ñaar ñu déglu ko ci micro Ousseynou Diop. ñu ngi ñëwoon ni admission CAF bi pour xool un peu le site du nouveau stade Babacar Seye jotoon nañ ko présent comme ni nga ko waxee premier ministre ñëwoon na fii ministre des sports bi ñëwoon na fii et ñu stabiliser site bi donc li ci des mooy démarrer travaux yi def nañu déjà juróomi région yi nga xam ni moom lañ yaakaar ni ñooy accueillir kan bi li ñu mën a wax rek mooy autorités yi gën a kawee muy premier ministre ñoom ñëpp engagé nañu ba nga xam ni en tout cas lépp loo xam ne dafa war ñu war ko def ci stade ak infrastructure yeneen yëpp ñu soxla ci kan bi ñoom pare nañu en tout cas pour accompagner en tout cas le Sénégal et fi mu nekk nii je pense que lépp nekk na en place pour que bu ñu delloo bu ñu defee restitution yi ñuy xaar instruction autorités yi et am nañu yaakaar nii bu ñu delloo daal ba waxtaan ak kilifa yi dinañ am lu gën a leer pour démarrage ñu mën leen wax kañ lañ koy démarrer incha allah. ca ba ñuy dalal euh, ndaw kaf yooyu le euh, ki nga xamante ni daal moo leen tertu moo di Augustin Senghor moom mi nga xamante ni moo jiite fédération sénégalaise bu football moom itam mbébétam moo di fexe ba Sénégal daal di jot ci googule organisation ci Coupe d'Afrique bu atum 2027 ñu déglu ko maître Augustin Senghor. depuis 2002. 2002 ba tey suñu zone di UFOA organisé li nga xam ne moom moo di coupe d' afrique des nations booy xool bi mujj bi ca Mali la woon ci atum 2002 te laataa Mali boobu fii la woon ci Sénégal ci atum 1992 mënuñu nangu nag ni boob ba tey at yi fi jàll yëpp suñu zone organisé tul ci jamono yoo xam ne yeneen zone jot nañu organisé ñett ba ñeenti yoon te ak léegi suñu zone di UFOA mi ngi toog di xaar tey nag ak li Sénégal di représenté ci football waxuma la sax africain waaye fépp ci àdduna rawatina itamit ci li nga xam ne ni moom moo di zone bi la ñu nekk war na tax ñu takk suñuy dàll xeex waxuma la pour Sénégal rek waaye itamit pour li nga xam ne moom moo di suñu zone ngir bile Coupe d'Afrique des Nations dellu si fi. aussi pour notre zone. yaa faay Seydou Acha bisimilah. mu ngoog ak RFM kumpa jeex na. xibaar yi ñeel Tchad dinañ ci ànd ak Ana leen di nuyu mbokk yi gannaaw Ziguinchor Fatick dalal na itam.